dëgg nga xam ne maa ngi koy wax léegi ne ko sa sa dëkk sax la waroon a dogiñ mm-hmm, mm-hmm, ci sëñ Ibrahima Khalil mm-hmm. waaye lii ma te moo tax ma ñëw fii dëgg eh, di nuyu sëñ Lamine sama waay sama xarit moom itam jàmbaare di bokk ci sama ñu faral di diglu di nuyu it waa Hizbut Tarqiyyah yëpp di nuyu waa Al yëpp di leen wax ne daal balaq di leen dëgg la euh, jërëjëf euh, sëriñ El Hadji Ndiaye mu mel ne rek euh, kon ñetti fan yi nga xam ne si moom la ñu dëgmal rek ñëpp di ko wàcc maanaam fi commune bi moom nan nan la déggee li nga xam ne si mooy ñetti fan yooyu waaw ñetti fan yi de moom ñetti fan yi ñëpp la dëgg la du ñetti fan yi bu tarxiya mhm. du ñetti fan yi al muridiya mhm. ñetti fan yi murid yi la murid mhm. yi a ko bokk ndax mbir mu ñu tudd sëñ Touba. Mhm. di ko amal mhm. muy journée culturelle mhm. boobu kenn moomu ko sëriñ Touba ko moom ci képp koo xam ne murit nga wala nga bëgg sëñ Touba wala nga sopp sëñ Touba ci mbir moom nga bokk kon rawatina nag ñun ñi nga xam ne dañoo jëkk dëkk ci dëkk bu tedd bi muy Touba yàlla baaxee ñu bokk ci ñi jiite dëkk bi mhm. dëkk bi sax neexut a jiite booloo ma ko jiiteel boppam waaye mhm. ñun bokk ci ndaw yi mu tànn mhm. eh, muy li ñuy wax maire yi yàlla def Abdou Lahad Ka di njiit li ci ndigalu sëriñ bi yàlla it boole ma ca ñu topp ci moom muy adjoint maire yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi toftal ci moom man ma bokk ci adjoint yooyu yàlla def itam ñu dénkaat ma cellule communication ci wàllu ci mairie bi mhm. kon tey suñu ma wooyee mhm. ne man naa ñëw ñu waxtaan ci bis bi ñu war a defal Serigne Touba ci Dakar. Mhm. damay sawar ci ñëw ci ci ñaar ci ñëw ci sama jëmi bopp sawar ci ñëw ci li nga xam ne moo ñu liyee moom la ñor muy mairie bi nan la ko mairie bi nag war a waajale loolu mooy li ko ñëpp di waajale ni nga xam ne ni la ko bu taraka mi ko initié waajale jàppal ne noonu la ko mairie bi di ko waajale ndax ni ma la wax ci awalan mooy ñoo ko bokk réussite bi rek lañ ci bëgg feeñee ci Serigne Touba lañ ci bëgg mhm. wane kan mooy Serigne Touba lañ ci bëgg loolu dama jàpp ne ku koy def waa Touba nga koy defal rawatina ñi nga xam ne ñooy mairie bi dëgg la rawatina ñi nga xam ne si ñooy mairie bi ci mairie boobu sax laay ñëw ndax euh, bés yi nga xam ne si Hizbut Tarqiyyah naam moo woote waaye bu wootee eh, mën naa ne eh, Touba gi yëpp la wooteel eh, te Touba gannaaw wax nga ko léegi yéen la yàlla teg ci bopp bi wala yën la sëriñ bi bokk bokk ngeen ci ndaw yi nga xam ne si tànn leen teg leen ci bopp bi mm. ñu gis rek maanaam fépp fu mbokk taalibe nekk rek yaa ngi jéem a jóg Euh, di xool euh, yow tamit euh, bés yi nan nga ciy taxawee ak lan moo ci doon sa taxawaay te gannaaw Hizbut Tarqiyyah moo ko wootee mën naa ne daanaka Touba la ko wooteel te yéen ngeen nekk ci boppu Touba kon yéen ñi nga xam ne si yéen a nekk ci boppu mën nañ ne yéen lañ ko wooteel événement bi seen événement wu bopp la ko moom buñ ci amee ndam tamit ndam li ndamul Serigne Touba la bi yëpp la waaye yéen tamit da ngeen ci am cër boo xam ne si dañ leen ko ci leen ko ci yéen lan moo war a mën a doon ca bés ba maanaam buñ ci yeggee yeneen région yi nga xam ne si jaar nañ ci fu ci mel ne Kaolack fu ci mel ne Thiès fu ci mel ne yeneen région euh, fu ñu ci jaar rek mbokk taal bi di ñu jóg wax dëgg yàlla ñoom ñëpp kenn ku nekk fas ci yéene wane sa bopp euh, mu bëggoon a xam rek maanaam bu ñu demee ba nga xam ne ñu ngi jub bis yooyu euh, yéen en tant que mairie Touba naka ngeen ci bëgg a ak ba lan moo ci war a mën a doon seen seen seen taxawaay bu ràññee boo xam ne si ñëpp dañu xam ne événement bii kat wax dëgg yàlla maire ci taxawee ma ko waxee mhm. taxawaay mhm. weesu li may ànd ko génn mhm. de début ba fin loolu nag mairie bi mhm. ni ma ko waxee xaw na yéex sax mhm. waxtaan nañ fi am na yebaloon nañ fay ndaw mais jotuñoo na waxtaan dëgg mais yàlla def na mhm. sëriñ Atou yebal na fa ay ndaw ñu ñëw fa bokk ma ak ñun ak ma ak euh, bi dëgg yàlla boole ma ca waxtaan wa ñu waxtaan ak ñoom ba xam ne mbir mi sunu mbira ndax dama leen a wax ci waxtaan wu ca wax ja ne ñu ngi doon diglu waaye bi ngeen ñëwee xam nañ ne mbir mi suñ mbir mhm. mbir la boo ko moomee muy sa mbir da nga ko jàpp ak fukki loxo mhm. naka lañ cee demee ak naka lañ cee waxee mhm. ñoo ngi ci ti waajtaay wi ñu it ni ngeen di waaje noonu lañuy waajee ah. ñoo ngi fas yéene daje waxtaan xool naka la ñuy demee nañu ko bëggee daal mooy dañu fas yéene mairie bi kenn du des li nga xam ne mooy téeméeri conseil yi nga xam ne moom la sëriñ bi tànn ñu nekk wi bu ñu ko yàlla mayee ku ci amul ngànt doo des li nga xam ne ñooy adjoint maire yi tamit ku yàlla maye may maye jàmm ñëpp kenn du des mhm. kon moo xam na leen ne mobiliser nañ maire bi mhm. mobiliser ña fay liggéey mhm. bëgg nag mobiliser waale waa dëkk bi waaw kay ndax waa dëkk bi bu maire bi jógee rek ab dëkk moom bu maire bi jógee dëkk ba jóg na dëgg bi nag fas naa jóg maire bi ànd ak maire yi ak conseil yi ànd ak dëkk bi ak waa dëkk bi ak da dawaayir yi nga xam ne ñoo fi nekk mm-hmm. képp koo xam ne ni rek fas yéene ngaa dem mm-hmm. tàllal nañ la loxo mm-hmm. ñun njëkk ngeen leen di tàllal loxo ngeen mu ànd gungeewu ñu dem liggéey li sëñ Tuuba dëgg la euh, dëgg la waaw ci gunge googu tamit euh, daanaka mën nañu ci la ñuy des rek ba léegi ndax euh, bari na ay ñoo xam ne si xëy na da ay daayira lay doon yoo xam ne si xëy na léeg-léeg seen ay matuwaay du ko yegg ak yooyu xam naa du ñàkk ñoo xam ne si dana ñëw jéem waxtaan ak yéen tamit ak li nga xam ne si rek mooy jokkoo bi nga xam ne Hizbut def na ko ak li nga xam si mooy mairie de Touba ndax dañoo gis ci yeneen dëkk yu ñu dem yoo xam ne si léeg-léeg ñoo xam ne si dañuy jokk jàpp ci vraiment joxe ay bus wala joxe loo xam ne si nit ñi danañ ci mën a Euh, wax dëgg yàlla jàppandi ba mën a yegg ca Ndakaaru ndax Ndakaar yi jegewut du fi kon ñu bëggoon rek population bi accompagnement boo xam ne si euh, peut-être xëy na yéen da ngeen ko ci mën a def ak yooyu pour ñoom tamit ñoom ñëpp a a li ma wax rek mm-hmm. mooy mm-hmm. ñi ngi daje mm-hmm. fas yéene seet nu ñuy demee ñu gunge la ña nga bëgg ñu gunge la ñëpp Mm-hmm. da nga leen woo ca lay tax ñu gunge la mm-hmm. matuwaay yooyu da nga ko jël dëgg la mm-hmm. nangam lañuy demee laay bañ a wax dëgg la nangam lañuy joxe mën naa am ñooña dañoo jekk door koo wax dëgg la waaw ñun nag waxtu ne jekk nañ ndax Sëñ Tuubaa waajal nañu waaye nag waxtaan ba xam ne lii ngay demee nii la ñuy defee mhm. nii la ñuy duggee ci mbir ma ba kenn duñu ca xeeb ci kenn duñu ca gën a gën a jàmbaare loolu la ñu nekk ca loolu ñoo ngi ci mhm. waaw mhm. fas yéene nañu daal bu ñu ñëwee ñoo xam ne mairie bi ñëw na bu ñu demee ñu xam ne maire bi dem na. dëgg la dëgg la kon loolu yaakaar naa wax dëgg yàlla euh, dal na xel bu baax a baax a baax li euh, nga xam ne si mooy euh, mairie de Touba li fépp foo xam ne si askan wi soxla nañu rek taxaw nañ fa gis nañ ko ba tàyyi ko ci màggal yi gis nañ ko ci màggalu Touba gis nañ ko ci yeneen événement yoo xam ne si day am fii ci Ndakaaru toujours rek dañuy gis wax dëgg yàlla mairie di ci taxaw bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ba sëriñ bi gërëm na leen du benn du ñaar yaakaar naa Sëriñ Lamine loolu taxawaay am solo la ci biir Touba lu am solo te koy sant bu baax ci kàddu yooyu mhm. day wone rek maanaam euh, constance mhm. maanaam ak euh, sax mhm. ak cohérence euh, ci ak jublu goo xamante ni nattable amu ci ndax suñu fàttalikoo déclaration bi nga xamante ni moom la suñu Aatu jëkk a def di jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah di jiitee président comité directeur bu grande journée culturelle yi boo xoolee woote bi mën naa ne ñun ci euh, ràññee mhm. euh, bu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke Dialle xalifa général des Mourides mhm. teg ci ay jëwriñam Sëriñ Mountakha Mbacke ak Sëriñ Cheikh Bassir mhm. ak njabootu Sëriñ Touba yi mairie Touba daf leen tudd tudd bu ràññeeku ngir wane ni ñun ci dëkk bi lañu ne ay ad seeni administré lañu ñun ñooy woote loolu kon ñoom ñooy ñu ñuy saytu kon kenn warul dem ñu des ci seen ginnaaw la te indi maire Mbàkke ba indi autorités yi nga xam ne ñoo nekk Jurbel ñu soog a jàll ci ci beneen niveau kon loolu yaakaar naa bu fekkee junj na ko boobaak léegi muy ay weer muy dox tey ba mu yebal ay délégation euh, boo xamante ne rencontré nañu euh, monsieur le maire ba waxtaan ak moom yaakaar naa lii sëñ alaaj Ndiaye wax te euh, bokk ci maire yi waaye itam yor bànqaas bu am solo muy mm-hmm. communication ne ñoom itam fas nañu yéene euh, kenn des te mm-hmm. mel na ni sax comité de pilotage bi mm-hmm. euh, jublu nañ ci loolu ndax suñu amul Sidi Samb mi ngi doon yëgle dibéer ndaje mu ñu war a def kër Serigne Touba nga xam ne daayira yi nekk ci Touba yëpp ku ci ne ak gox yi ne ñoo ci war a daje ñu gis ne loolu mooy li am fépp ci biir biir biir Sénégal ndax Fatick Euh, daje nañu ñoom itam bërki démb mhm. joxante waat rendez bu kër sëñ Tuubaa gi euh, Thiès mhm. yaakaar naa sëñ amee Saloum Dieng ñëw na fi démb wax ñoom dafa mel ni ñoom fi ne seeni pexe bëgg nañu weesu oto bi mhm. oto yi ba ñu ngi xool yan pexe la ñuy def bu boole ci saxaar gi kon day wane kenn ku ci nekk rek ni ko suñu alaaji waxee xam nañ ne Seexul Xadim la ñuy wuy ji l'islam la ñuy demal moo tax kon nit ñi amu ci benn moyen boo xamante ni euh, bàyyi nañ ko te yaakaar naa kuy tudd lépp nag mm-hmm. grande journée culturelle tubaab moom kenn waru lañ ci jiitu ndax borom dëkk bi mm-hmm. di borom yëf yi mm-hmm. moom lañ koy defal te fii la barabam la fii la barabam nekk mu mel ne it uh, kon uh, sëriñ la Hadj Ndiaye uh, balaa ñu lay bàyyi rek ndaje mi nga xam ne si moo war a am dimanche la mi tudd na ko léegi nga xam ne dañ ci woo mboolem daayira bu fas yéene rek waxtaan xool nañ la ñuy gën a organiser wu rek ba population Touba daanaka kenn du fi des mu mel ne yéen tamit defe naa da ngeen teew ci ndaje moom ban soññee rek ngay am ci li nga xam ne si mooy ci ndajam waaye it ci li nga xam ne si rek mooy grande journée culturelle soññi ci waa population Touba bi yëpp. waaw soññ bi de weesuut lu may ni ma ko waxee. Mhm. xam ne mbir a ngi ñëw moo xam ne noo ko bokk. Mhm. ni ma ko waxee ci njëlbeen ga. Mhm. du yëfi Hizbut Tarqiyyah. dëgg la dawlatu ko. xalaat nag nit mën na koo am yëkkate dara waaye bu dee xalaat bu baax na jàpp ne moomatu ko. dëgg la xalaat bi xalaatu yoonu murid yépp la. siggal fa Serigne Touba wane fa Serigne Touba rek moo tax. dëgg la. sëñ Tuubaa nag waxtu ne mi ngi wane boppam mi ngi jëf boppam waaye surne bu mel nii am ko ci ndakaaru dafay doy waar boo dem tooy gannaaw tuuti histoire da koy indi dañ koy yóbbu ndakaaru di ko fa jaaral di ko yóbbu di ko exilé wéetoon na waaye tey bu nit ñi mobilisé woon ne dañ koy fekki ndakaaru tey wéttiliku na loolu nag man noonu laay jàppe journée bi damay jàpp ne départ ba la woon mais arrivé bi lañuy teeru ji ñu jàpp ne kon dañoo jóg uh-huh. teeru ji sëñ bu mag bi kon mu mel ne dafa foofu lañ koy fekk uh-huh. kon nag ku war a teeru ji sëñ Tuubaa uh-huh. war ngaa boole defaru solu jekk taxaw xam ne sëñ Tuubaa ngi teew te kon journée bi man dama ko jàpp ne ñun dañoo wëlbati jóg di teeru ji ku tedd ki kon nag képp fu waay nekk di murit ca man ko ñoo ngi lay soññ nga ñëw ci bis ba waaye di la ngi nga ñëw ci waxtaan wi mhm. ñuy amal diwéer mhm. ngir waxtaan wi du lenn lu may mhm. ay nit aljamaatu rahma sëñ mbooloo mi dañuy wax ne sëñ Fall da ko daan firée ne aljamaatu mbooloo mu bokk bëgg-bëgg rahmatu lu ñu jëm man kon ñun noo bokk bëgg-bëgg kon li ñuy jéem mooy lan boole suñu bopp kon waxtaan woowee waxtaanu defaru la waaje fa dangay ngay waaje war a dem nag teew fa wàññiwu dara kon ñu ngi sàkku ñëpp ku dégg suñu kàddu ak ku mën a doon mm-hmm. na nga ñëw dimanche kër Serigne Touba mm-hmm. nu bokk waxtaanee naka lañ war a waaje demee ba moyens yi ca war yëpp ñu def ko ba buñ di àggee ñu xam ne waa Touba yi moom mbir mi ndax Cees ak Kaffrine ak yëpp ñu ngay pare mhm. waaye ñooñu nag ñu xam ne dañoo wàll si moomuñu ko ah, ko ñun ñoo ko moom <laughs> ñun ñi ko moom nag <laughs> ah, nañ fexe ba <laughs> bu ñu àggee ñu xam ne borom mbir mi ñëw na wallaay dëgg la dëgg la ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Serigne El Hadj Ndiaye yaakaar naa kàddu yooyu mu yëkkati am na solo lool ab soññee la bu baax a baax waaye it détermination ak engagement euh, bu baax a baax ci euh, li nga xam ne si rek mooy bés yooyu di ñëw euh, fële ca Ndakaaru ni mu ko waxee noonu ñun toi Touba ñun ñooy dalal bépp région bu fa ñëw wax dëgg yàlla ci ngeen bokk nag waaye ñun ñoo leen di dalal kon na ngeen sóoraale loolu xam ko bu baax ñun ñi nga xam ñoo leen dalal bu soobee yàlla da fekk ñu pare ci wet yëpp waxee moom mi nga xam ne si cellule communication bu mairie bu Touba la bokk wala bu commune bu maire bu Touba ñu ngi leen ziar ñoom waa mairie bi yëpp di ko jaajëfal bu baax a baax rek ci eh, teewaay bi ndax ku nekk xam na ne xat na lool wax dëgg yàlla liggéeyam bëri na waaye eh, ndeysaan macha allah dafa eh, bàyyi lépp rek bi ñu ko woowee daal di ñëw wuy suñu ngir fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xam ne si rek mooy grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba yi kon ñu di ko sant bu boo demee nga nuyul ñu monsieur a baax ak ñi nga xam ne si ña nga ca biir mairie ba ñëpp waaw mel ne dafa am lu ci bëgg a dolli waaw waaw <laughs> mooy sant yàlla. dëgg la julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Mm. sant sëriñ Touba. dëgg la sant sëriñ Fallou sama sëriñ. Mm. Euh, di sant sëriñ Cheikhouna. Mm. mii ma fekk ci plateau bi. di sama xarit. dëgg la bu baax. Mm-hmm. yàgg lool ba ñuy gone ba nëgg ni mësuñoo tàggoo. ba léegi. dëgg te muy nit koo xam ne nit ku am solo la ci mbir bi ngeen ko invité rek mm. mooy invité ngeen Touba gépp dëgg la tey de yàlla wane waat na ko ndax ñu xamu woon ne mi mu ngi <laughs> fekk ko fi te moom noo jàngandoo ñoo defandoo lépp ndeysaan kon benn lan dëgg la sëñ Lamine nit ni ma koy wax maa ngi koy remercier di ko nuyu wallaay uh-huh. dama koy tooñ ne ko man damay suivre toujours ay émission dëgg la uh-huh. xataa bu mu def rek dama bu ma gisee dama ko nangam ak nangam la uh-huh. moom ak sëñ ñang sëñ bi ñang uh-huh. euh, doomi sëñ Mourou Mamoun ah sëñ imaam ñang sëñ imaam ñang fu mu uh-huh. jéemee ne ma daf ma laaj loo gis dëgg la loo wala loo dégg <laughs> ma ne ko def nga nangam nanga ko nangam mu ne ma yow li nga may siwéle daa métti ma ne ko man man maay métti ci mbir <laughs> communication damaa ñor ah, yow itam mm. maa ngi lay sant di la gërëm dëgg la introduction introduction bi ni nga koy defee lu am solo la ak ah, bi may ñëw ba léegi maa ngi déglu rajo bi dëgg la dëgg la dégg ni ngay waxee di sant yi nag sëñ Atou Diagne uh-huh. mi nga xam ne moo jiitee daara ji mhm. ndax wax dëgg yàlla mhm. jàmbaar la dëgg jàmbaaram moo tax lii yëpp di am dëgg la kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko mhm. ñaanal yal ko sëñ Touba jàppale ak mboolem ñi mànd nag di liggéey di sant itam sëñ Samb dëgg la moom mi nga xam ne tey moo tax ba ñu yëw fii dëgg la te yàlla dénk li ñu ko dénk ci dëkk bi mu war a mobiliser waa dëkk dëgg la ñu fas yéene ko ànd ak moom ba mu am ci ndam dëgg la loolu it ñu ngi ci sant ñëpp di ci gërëm waa almuridiya di gërëm ñëpp bàyyiwul benn fu taalibe nekk xam ne daal li ma ko waxee sëñ tubaa lañuy ñuy teeru ji sëñ tubaa fa nekk moom la ñuy wane ji kon nag nanu ànd ak discipline yarute ndax jarute mooy lépp ndax na ko sëñ di waxe woon al adba al adba suma al adba wa huwa an umman wa abba ba ila axiri kon noonu lañ war a mun a demee bañ koo def folklore mm-hmm. ca wane ni ñi ko initié ak di ko xalaat mm-hmm. am poo taxut leen wane seen bopp taxut mm-hmm. li ma jàpp mooy wane sëñ tubaa tax uh-huh. wane sëñ tubaa nag ku koy def da ngay xam ne sëñ tubaa ngay wane ji boo demee dañu mel ne néew bu nekk ci kanam ka koy sang wane fab yar bañ xam ne mbir yi nii lañu mel bañ faa wane lenn ba ñu ñu wane loo xam ne dañ ko teg ci deru murid ci du mm-hmm. deru mm-hmm. loolu rek laay dénk ñëpp di ko dénk sama bopp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah yow tamit ñu di la bu baax a baax rek euh, boo demee euh, ak Serigne mm. euh, bu baax a a baax ñu di ko sant bu baax a baax rek Serigne El Hadj Ndiaye mu ñëwoon rek li nga xam si mooy grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba yi wax dëgg yàlla contribution bi mu ci def rafet lool ñu di ko rafetlu lool di ko jaajëfal bu baax a baax di wane ne di waxante tamit ne lii moom wax dëgg yàlla ak engagement la gu mag a mag ci euh, mairie bu Touba wax dëgg yàlla ak it jàppale gu mag a mag ndax euh, wax dëgg yàlla ñëw toog ci suñu plateau waxal ñu li nga xam ne si euh, noonu ngeen di waaj a bés bi yéen tamit wax dëgg yàlla loolu ak cant rek la ñun ci ñun kon lay sant bu baax a baax Serigne El Hadj Ndiaye mbokk yi lu ñuy def rek dañuy daal di wéyandi nag ci suñu émission ba léegi rek daal di fas yéene dugg nag ci beneen bunt rek mooy buntu xikma ak suñu gan gi Serigne Cheikhouna Lo jërëjëf euh, mbokk yi kon euh, ñu ngi rek ba léegi ci suñu émission bi al iftar euh, sant bu baax suñu gan googu waaye sant bu baax it suñu gan gi nga xam ne moo fi ne ba léegi Serigne Cheikhouna Lo suñu laa mel na yegsi nañ ci buntu pa xikma wala ndénkaan lan ndénkaan wala ban xikma nga ñu indil tey. loolu dañuy dugg tuuti ci li ñu doon li ñuy waajal. Mm-hmm. muy grande journée culturelle. Mm-hmm. al yawmiyat al thaqafiya al kubra. di mm-hmm. Cheikh Ahmadou Bamba. muy loo xam ne eh, ñi amut lu ñu wane sax ña ngay fent ay yëf ak di sos di wane waaye ku toll ni Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne am na jëf na bind na def na lépp nit ñi teg ci seeni gët suñ toogee ba di ko wane kon loola doonut ne bëgg aw xew la mhm. wala bëgg ay daje wane yàlla la mhm. ndax Sëriñ Tuubaa mënees naa xame ci moom yàlla kon loola ay bis la yoo xam ne mhm. suñ koy def mhm. waaje ko ci tuubaa waa Touba ñëw mhm. ànd ci noonu loolu dafay wane ne lii kat euh, kenn xalaatul ne caaxaan la waaye lii wéral na ne kon du ay caaxaan uh-huh. ñi nga xam ne ndax mbir euh, mën naa wér waaye nit di ci xalaat wala gisuñu nit mën naa feebar uh-huh. léegi nag gisin yi nga xam ne yu feebar la yëpp wala seeni xalaatin uh-huh. dëng uh-huh. walla mu jeng uh-huh. wala moom ay dérive yu ci nekk ñooñu nañ xam ne kon lii kat mbir la moo xam ne njàngalem sëriñ Touba la Serigne Touba la ñuy delloosi mosu fee jóg waaye nag saa su nekk mbir boo ko amee eh, di répété dañuy wax ne lu pédagogique la kon bu fekkee ne wax nañu lu ñu waxoon it day baamu ga du tekki lu dul rek jàngale ak gën a yeesal la nga xam ne moom la fi sëriñ bi euh, defoon euh, jëm ji nga xam ne nag mooy sëriñ ji teewal fii maire bi ah. noonu mu ko waxee ah. ñoo jàngandoo boobu ba léegi Touba daf ko na naka jekk bi ñuy jàng biir Touba ah. ba war a génn dem feneen di jàng bu vacances yi masaana jot du fanaan benn guddi ca dëkk beneen ba mu doon jànge wala réew moom doon jànge kon loola doon loo xam ne Touba ñor na ko te eh, nit ku toog ci ab euh, saalam mm-hmm. am mbir moo xam ne danga nga war a def war caa dindi mm-hmm. lu nit def nga ne lii kenn waru ko def mm-hmm. te yow agiro réagiro ah. loola bu boobaa ah. dañ lay jàppe ci ñi nga xam ne seen gis-gis wala seeni i xalaatin dafa am ay dérives ci nekk euh, kon fi ñuy jàll mooy xikma ah. xikma muy sagesse bi nga xam ne moom lañu indi andi tey mooy xiina sakata ahlul xaqi anil baatil tawahama ahlul baatil annahum ala xaq aliyun ibnu abi taalib karamallahu wacca aliyun karamallahu waccahu dafa wax ne ñi nga xam ne ñoo amee dëgg yore xam-xam ràññee saa yuñ noppee bàyyi ñu xamut di tañax tañaxi ñuy dox waxuñ leen dara jéemuñ leen a tegaat leen ci aw yoon su boobaa ña nga xam ne ñoo nekkul ci dëgg dañuy mujj jàpp ne ñoom kat lii ñu yor fi la yëf yi nekk ah. loolee nag damay wax ne kon Eh, ngir seedewaat rek moom mi dalu ko mhm. ndax la mu jàng mi ngi koy jéem a appliqué ci dëkk bii nga xam ne mooy mhm. Touba eh, dafay xaw a nuroog la Einstein waxoon mhm. ci ne ñi yàq jóg di yàq àddina wala di def lu joonu doonut ne ñooñu ñoo yàq àddina ñu yàq àddina mooy ñan mooy ñi nga xam ne ku jóg di yàq mm-hmm. dañoo toog ne pat di leen seetaan lool ñooñu ñoo yàq àddina mu des ci la Sëriñ Lamine waxoon mm-hmm. ca ña nga xam ne eh, eh, asaabu sabti mm-hmm. eh, ña nga xam ne ñoo muccoon mooy ña doon wax rek nga xam ne dem nañ ba man karam raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadihi wa in lam yakun fa bi lisaani wa in lam yakun fa bi qalbi ku gis lu ñaaw na nga ko soppi ci say sa say yoxo mhm. mooy am kàttan goo ko defe soo ko mënut na nga wax mhm. soo ko mënut na la metti boobu mooy bi ci gën a suufe loolu kon ñi nga xam ne ñoo amee dëgg mhm. war nañoo taxaw xam le ne lii kat dëgg la ku def lu safaanoog moom ñu mën a taxaw am ñeme gu tool ni jaam maarloog yow ne la lii kat du dëgg wala doonut li war a def doonte la anam yañ koy defee it ba nga Eh, mm-hmm. nangu mm-hmm. ñu convaincre la mm-hmm. loolu Sëriñ Tuubaa wax na ko muy kenn du fekk nit ca lam nekk nga di ko ci génne génne win woo xam ne bu brutal la waaye da ngay fexe ba jàngal ko jàngalin woo xam ne dana génne jëm ci li eh, gën jóge ci la gënoon te sax amaana du yéeg ne jóge na ci Euh, waaw kon euh, ñu di ko rek euh, jaajëfal wax dëgg yàlla Serigne Cheikhouna ci xikma bu am solo boobu nga xam ne si moom la ñu indil Serigne Lamine mu mel na rek lépp day delluwaat rek ci ñaaxaat jullit ñu képp koo xam ne si gis na lu mu war a mën a dindi wala loo xam ne si war na cee war a mën a wax te muy doon loo xam ne si lu yàq la rek mu mu gën mu wax ci. dëgg la muy lu am solo loo xamante ne tey boo ko xoolee. Mhm. xam naa ne xikma la bu kéemaane boo xam ne. Mhm. mën naa fii sax. li ñu def ci grande journée yi suñu Seexuna euh, tudd na ko léegi ah. ndax euh, suñu boroom itam mm-hmm. loolu la jëflante mm-hmm. ak bindee fi nga xamante